asalaamaaleykum chers téléspectateurs de la télévision Baol TV mais également aux internautes yi nga xam ne vraiment ñoo ñuy suivre saa su si réseaux sociaux yi di 3W point baoltimes point com contentement bu baax a baax comme ni leen ko waxoon saa su ne rek dinañ leen toppal euh, lépp loo xam ne mooy ambiance fii bi nga xam ne fii am na fii si région de Diourbel rawatina si Noël yi si décembre yoo xam ne ñoo ngi dund ambiance tey euh, ñu def plateau spécial fii si buntu poste si buntu préfecture tey euh, ñu la di ñoon boo xam ne vraiment euh, euh, la man soxna laa tudd euh, lan moo la indi fii dama ñëw fi indi samay rakk pour ñu jouer xam nga rek yaa ma gën a xam affaire bi moom réussir na franchement parce que lii musul am Diourbel su defee kon bu ko fi jaw baas indee ñu sang fait plaisir parce que suñu rakk yi dañ leen di yóbbu ba Dakar bu feet amee ñuy dem ay Magigalande wala ñu yóbbu leen Thiès ay Miquelande place de France pour ñu mën a dund seen bonheur parce que xale feet la am bu ñu jëlee feet dañoo war di dund seen tuuti bonheur waaw comme ni nga ko waxee léegi mu doon benn affaire boo xam ne c'est la première fois moo am fii si région de Diourbel moo ak population bi ñëpp génn ana ban sentiment nga si am yow. ah kontaan ci loolu nag dëgg fa yàlla parce que fii da nga doon gis 19 heures ñëpp tëdd mais comme que lii am na fi nit ñi dañuy mën di veillé ba ay minuit une heure du matin parce que man démb man maa ngi fi ba ay vers 23 heures minuit yooyu ak ba sëriñ bi aussi ambiance am. waaw xam nga loolu tamit sax nu fait plaisir. mu mel ni yaa ngi yëg bu baax a baax a baax yaa ngi koy dund quoi. bu baax a baax ndax lii dafa neex billaahi ñëpp daje fi sa xarit yi indi sa rakk yi ñuy joué loolu dara dàq ko billaahi. ana la ngay wax Diaw Baas mi xam ne moom moo sampali ak staffam. Ah, di ko félicité daal di ko ñaan daal mu gën a yokk bu déwénee tamit affaire yi gën a bari joué yi gën a bari waa di ko ñaanal rek li mu si wutu yàlla may ko ko. waaw franchement li mu def nii geste bu nice la am nañu ko jiitu jubal te defuñu ko moom tamit ku am jom di ko ñaanal daal li mu bëgg moo ko xam yàlla defal ko ko. kii jaajëfal lu bëree bëri ndax euh, c'est pas euh, évident moom mu ñëw toog nii ànd ak ñun plateau bi mais dañ koy rafetlu bu baax a baax merci beaucoup. liñ leen ko waxee woon ah, ñu leen koy toppal saa su ne mais su li gis nii yëpp euh, ki ko waral moo ngi nii toog nii suñu mag suñu xarit di Diaw baas si ni niñ ko gën a mën a xamee Diaw ñu bàyyi la nga nuyu ak internet yi bala ñoo kii continuer si wax. ah jërëjëf ñu ngi nuyu ñu ngi lay nuyu d'abord di ñi nga xam ne ni ñoom nga àndal si Baol Times yëpp di nuyu aussi le PDG Baol Times muy Mor Sène di nuyu population bi yëpp di nuyu ñëpp aussi ñu ñuy seetaan euh, ñu ngi nuyu ñëpp daal tout d'abord. Ablaye Diaw comme niñ ko niñ ko gisee ni mu doon c'est la première fois région de Diourbel di ko féetee nii Noël yi c'est pas évident vraiment nga ñu gis lii ni si région de Diourbel mu doon affaire boo xam ne métti na en tant que organisateur ban euh, satisfaction nga ci waa mais xanaa di kontaan rek di kontaan di di di bëgg ndax euh, bu fekkee am na loo xam ne nii ñëpp ñu ngi ko soxla si dëkk euh, ku nekk nga ko soxla si dëkkam yàlla dogal si sa dëkk nga koy nga kay gis wala nga faxe mu ñëw foofu euh, te suñ borom sottil ko lépp yemb doo def li dul di kontaan di ko rafetlu ndax bu xale yi kontaanee rek macha allah. da ngay daal di kontaan. ok mu mel ni est-ce que euh, am nga ci euh, attentes yi nga doon xaar ndax euh, vraiment organisation bi métti comme ni ma ko waxee sànq côté financièrement doon na loo xam ne métti na trop gis nañ matériel yi fi ñëw saako des des millions e millions. anak anaka jaw baas nu mu def ba réaliser li waaw mais am naa si lépp am naa si lépp li ma doon xaar ndax li tax ma am si lépp li ma doon xaar xam nga dara bu amee euh, la nga war def nga def ko nga nga nga bokk ko population bi aussi ñoom ñu def si seen loxo euh, nga gis xale yi kontaan bu parce que euh, njaboot bu ja kii waajur bu njabootam kontaan mu daal di bëgg ba population bi kenn ku ñëw kontaan bëggee jaajëfal ñaani loolu rek daanaka dafa doy sëkk kon lañ doon soxla lañ si doon séntu daal wax dëgg yàlla am nañ si satisfaction 100 pour cent euh, kontaan nañ si par rapport bu fekkee comme wàllu finance aussi comme lu ma si liñ fi doon xaar euh, lenn lu nekk da naan mbay sa weewi tànk lu nekk da nga koy commencé parce que kenn ku nekk xam na Diourbel aussi ak euh, ni mu mel <coughs> économiquement aussi xaw naa dëgër ginnaaw ñun aussi si cadre bi la yëngu surtout si wàllu bâche chaise affaire yooyu wàllu location yor ay logistique ak yooyu. looloo tax aussi ñu gën a am am am am courage def ko parce que dina am loo xam ne ni dina wàññeeku mais dina am loo xam ne amuñu ko mënut a wàññeeku parce que day day ni ñu koy déplacé indi ko day cher lu mel ni manège bi ak lu mel ni moniteur yi koy encadré sécurité chaque jour seen restauration nangam a sangam mais nag loolu yëpp sant yàlla ginnaaw am na xale yi di bëgg rek population bi génn kontaan loolu dañ koy sant yàlla. bu mel ni euh, Grand euh, gis nañ ne euh, comme ni nga ko si cadre financier ay millions lañ fi gis. Eh, est-ce que mën nga ñu defal benn bu euh, euh, xam ne mën nañoo xam ne tant de millions moo ci dugg par exemple cinq millions wala dix millions wala lan. waaw mais neexut a wax nag def nañ étude projet euh, defar nañ lépp parce que am na si lu bëri loo xam ne nii xa millions yu xaw a bëri la bon tey lii nii du dëgg la suñ cër la gaa ndax lépp lu rafet si si si si lépp lu rafet lu doomu Bawol gis rek da koy bëgg indi Bawol waaye lépp lu rafet rek si biir njaareem rek dañuy bëgg mu des njaareem euh, kon bu fekkee def nañ ko moom am million yi daanaka amul njëriñ mais l'essentiel def ko mu réussir yàlla dogal na leneen am si muy réussir Diourbel économiquement mu taxaw si rek loolu mooñ si gën a yitteel ndax suñu commencement def du lii suñu commencement def lu njëkk mooy dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo euh, defaroon ay stand yu bari ay coût million pour organiser foire Diourbel suñu objectif mooy économiquement mu dimbale Diourbel bañ ko commencé bon def nañ journée lancement bi de xaw naa yàgg bañ ko defee toog lu yàgg aussi parce que lu ñu doon xaar aussi mooy euh, surtout euh, bu fekkee da nga am ay ñoo xam ne nii ay kilifa lañ ñu lay accompagner. du du du accompagner si wàllu finance mais wàllu technique ak gunge ndax dëkk boo gis promoteur bu jóg ña dëkk ak moom wala kilifa ya nekk ak moom ñoo koy accompagner ñoo koy gunge ba tax ñu mënal seen dëkk mënal yeneen dëkk. loolu nag aussi maa ngi koy bàyyiloo xel euh, soit muy autorité Diourbel yëpp muy ku mën a doon soit jóg ngir jéem nañ ko gunge même bu ñu amul moyen nañ ko gunge si wàllu xalaat gunge ko si wàllu ñoom seen ndombal tànk yañ am nga xam ne nii fañ àgg àgguñu fa. pour mën a taxawal ba nga xam ne ni doomu Diourbel bu nekk ni nga bëgg a taxawale Diourbel bëgg a réussir loola aussi dinañ ko daal lu mën a doon euh, lépp lu si waaye mën nga taxaw si jéem si lëf si sa kéemtalaay kàttan ñi nekk ñànk dëkk bi it nañu jéem a ngir yàlla gunge góor góorgóorlu parce que loolu manqué na fi trop par rapport ak yeneen dëkk yi loolu manqué na fi trop trop ndax nañu am benn message bi ñu faral di wax en général foo xee dañ naan noo Jurbel du dem noo Jurbel day dem day dem parce que euh, jàpp naa ne mentalité yi doon wax Diourbel du dem changé na euh, jàpp naa ne kenn ku nekk lii rek exemple la da ngay gis ku nekk dafay jëw mel ni yow yaa ko def ndax kontaan ak mbégte ne boo sañoon yow yaa koy def mais nag yàlla dafay dogal ñëpp duñ bokk defandoo am na def fu muy commencé mais ku nekk am na si yéene gi mais wax dëgg yàlla daal ñi ngi jëfal ñëpp daal ñi ngi kontaan aussi si lii buñ suñ ko doon perte million yàlla xam ne xol bu sedd lañ si am ndax ba njëkkee taal ménage xale yi si njëkk a dugg dama ko xool rek jooy billaahi am si loo xam ne nii lu ma lu ma neex la waaw mbégte la parce que télé nga ko daan gis gis tubaab bi di ko def di gis yeneen dëkk yi di ko def yow nga jàpp ne waroo mën a àgg fii tey ku ko def nga xool ne def nga ko keneen ku ko def nga xool ne def nga ko loola dootu la dootu la ump amut lenn loo xam ne daal di jom jërëjëf. mais dañuy lancer benn message ñu autorités yi ndax euh, vraiment war nañ cee mën a gën a jàpp xam naa ne sax jàpp nañ ci mais war nañ cee mën a gën a jàpp dañ leen remercier au passage voilà vraiment ñu gën cee jàpp ñu bay la nga kii remercier. war naa am ñu ma remercier aussi euh, parce que de toute façon euh, dinaa remercier ku mel ni centre directrice centre culturel parce que projet bi ñun buñ ko njëkkee xalaat mu dund ko. ànd ak entreprise Diobass ñu waxtaan si na waxtaan si ak directeur santé culturelle mu accompagne nag téye ñu ne ku nekk Cheikh Faye ñu taxawal projet bi euh, mu gunge ñu ak lu mu bu demee ba ñëw daanaka bokk na si lu mu si def ay jéego ba tax ñu ànd dox ko ba manège bi daal di ñëw gouverneur ak préfet parce que ñoom aussi def nañ seen kéem tolluwaay kattan li tax lii taxaw ndax ñoom bu dul woon ñoom defe naa rek courant bi ban ñu waxee pour ñu wàcce ko luur na luuraay boo xam ne manège bi ñëw na taxaw te demoon na ba suñuy laaf tooy na mais obligé ñoom it ñu obligé mën na gouverneur taxaw si ba luñ si war a taxaw ñu taxaw si wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jëfal bu baax a baax di gërëm aussi képp ku yor ndomba tànk njaareem di leen lancer message nañ gën a jàpp gën a taxaw Euh, ba njaareem nañu nañu bëggee mu mel ñun ñoom la ñuy dooleel pour njaareem nañu bëggee mu mel mu mel. au nom de de monsieur Diaw Bass vraiment ñu remercier autorités yëpp si taxawaay bi mais tamit li olof Ndiaye di wax naan labali fas taxuta fasa fasa raw waaw comme ça ñu gën a labale rek gën a yokk ñeex si jàppale bi vraiment ñu tamit euh, ñu lancer message euh, population bi ndax suñuy def Diaw Bass ku si mel ni Diaw Bass su dee organisé di indi ay loo xam ne vraiment si Magic Land lañ ko daan gisee wala feneen ak nga teg ko fii si région de Diourbel tamit bëgg euh, population Diourbel waa dund ko dund comme ni ko nit ñi dundee bañ a am complexe di ñëw di ko si dund ñu leen woo ñoom tam ñuy ñëw di jénn foire bi am na fi ambiance baa fi vraiment fi xale yi fowee ñoom fi mag ñi tamit am nañ fi place vraiment ñu lancé appel ñoom ñëpp ñu ñëw assister ko monsieur Diaw Ba dañ lay bàyyi libéré la rek vraiment nga gën a mën a observer affaire yi <laughs> merci beaucoup ñoom fii ci présidente euh, internet yi nga xam ne ñoo koy suivre. merci maa ngi nuyu euh, ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi suivre euh, Baol Times di euh, kii bu am solo aussi média bu am solo parce que soo ko ubbee lépp lu xew si Jurbel ak li xew ci àdduna li xew ci Sénégal da ko fay am donc maa ngi nuyu internet yi nga xamante ne ñu ngi connecté wu ci Baol Times di leen ziar di leen ñaanal jàmm. en tant que acteur culturel. culturelle di président de la di président centre culturel de la région de Diourbel ana ban yëg-yëg ngeen am ci li xam ne Diaw samp na ko waaw xanaa kontaan ci ànd ci aussi ak euh, xol bu set guy mais ak xel mu dal parce que dama ko koy wax suñu amul juróomi Diaw Ba yaakaar naa ni culture Louga culture Diourbel euh, du tumuranke euh, ñun en tant que représentant de l' toogal fi ministère de la culture euh, ci direction centre culturel bi su ñu gisee nit ku jóg di def li nga xam ne dafa bokk ci luñ tuddee entrepreneuriat culturel euh, promouvoir ay événement événementiel def festival bu rëy bi nga xam ne am na ñaar yoo xamante ne man dama ko ci retenir benn bi muy le premier événement boo xam ne dans la région dañ ko consacré aux enfants xale ku am solo ku ñu war a darajaal ku ñu war a jox cër mais ku ñu war a bàyyi xel mu am xel moomu jagleen leen festival bi ñu ne déet ñi waay mu lëkkale ko ak une foire maanaam boole socio-économique bi boole euh, aspect ludique bi mooy aspect xale yi foo dëggal leen boole ko ak li nga xamante ne aussi euh, ay plateau artistique yoo xam ne day génn te lépp luy diversité culturelle bu biir région de Diourbel je pense que en tant que autorité de la culture ci région bi je pouvais pas espérer mieux moo tax dama koy gërëm di ko féliciter bu baax ci initiative bi parce que yomb dafa ñeme mu osé mu def ko may euh, wax aussi comme ni ma ko waxee démb euh, autorité yi euh, homme politique yi population Diourbel ñëpp jàppale ko parce que lii nekk na loo xam ne c' est une première à Diourbel c' première te nekk na événement bu am solo. mu mel ni sur le plan d' organisation mu doon affaire boo xam ne métti na trop mais sànq souligné na ko fii ndax taxawaay bi ngeen ci am ah, yéen yéen waa centre culturel. waaw ñun loolu moo ñu war parce que tey jii suñu fi indee mooy ñu encadrer acteurs yi gunge leen bu ñu amee xalaat suñu mënee jëmmal xalaat bi ñu jëmmal ko ñu won leen yoon bi. Euh, su ñu amee jafe-jafe pour jëmmal xalaat bi ñu àndandoo ak ñoom jëmmal xalaat bi euh, jox ko contenu euh, utal ko ay ay buntu mu jaar ci buntu yooyu ba lépp mën a sotti sant yàlla nag mel lépp rek ki nga xam ne moo am xalaatam indi moom nga koy gërëmee parce que amaana bu ñu doon kenn bu nekk bu toogoon sa koñ di xaar wala nga toog sa ruq di xaar kon lii du am ñu ñaan yàlla comme fee la ko def ñuy ñaan yàlla 2020 bi ñu gën a ci ay activité yu mel nii gars yi gën a comprendre njëriñu activité bu mel nii ci population waaw comme sànq ni nga ko waxee euh, mu dafa doon loo xam ne vraiment euh, doonatul yëf yi jaww baas wala doonatul yëf yi yoo xam ne waa centre culturel la toute la population ñoo si gis sant seen bopp est-ce que yéen euh, fi mu nii taxaw ngeen comme yeneen année yi di ñëw édition yi di ñëw ngeen ànd ci ak ñoom ak parfaite collaboration ak yeneen comme ça centre culturel centre culturel yi fi nekk incha allah parce que ñun loolu moom mooy suñu mission euh, képp ku taxawal dara euh, si wàll bi ñu yëngu ñu gunge la ci surtout nag euh, dama koy gën a waxaat mooy affaire entrepreneuriat culturel parce que xam nga dañuy yàgg toftalee waa waa culture que secteur la boo xamante ne bu rentable da ngay investir à perte mais il est temps que ñu xam ne que économie bi nekk ci autour de la culture nekk na une économie réelle il suffit que ñu booster ko ñu mën a xam lan la ci am comme retombée xoolal tey tey am na ñoo xam ne organiser wuñ festival bi mais xoolal tout autour di festival ñu ngi teg seen ay petit commerce di jaay mën nañu jaay si jour bi loo xamante ne mën nañ toog seen place weer duñ ko ci am. tey euh, li nga xam ne mooy manège bi mu teg par jur mun na ci génne loo xamante ne tey mun na investiraat ba utaat beneen manège donc muy yoo xamante ne ay connexion la yoo xam ne tey jii moom moo tax gars yi yëpp war cee dugal seen loxo ñi yor am doole dugal ci seen loxo ñun nag suñu wàll képp ku yëkkati lu mel nii ñu yëg ko xanaa ñu bañ ko yëg mais suñ ko yëgee dinañ ci taxaw te incha allah loo gis rek ndorteel bi dina am euh, quelques failles mais ci failles yooyu moom moo lay mayaat doole année prochaine nga mun a corriger mun a rectifier mun a am xalaat yu bees yoo xam ne day gën a jëmmal li nga xam ne mooy festival bi. nga xam ne ñun ñëpp dañuy jël suñu ay force suñu ay énergie concentré ko ci loolu mu nekk loo xam ne pour région bi la ñëpp gis ci seen bopp ñëpp jàpp ci. ñu sant la si disponibilité ak euh, occasion bi ñu may daa euh, tamit di la sant la gërëm ndax euh, jëmal nga bés bi ndax su la neexoon nga toog sa kër baa nga ne nangam mais ànd nga ak Thiaw Basse ànd nga ak toute la population diourbelloise vraiment ñu sant la gërëm la. merci beaucoup plateau bu ouvert la bu polyvalent la dinañ ci dalal ku ne sànq Thiaw Basse jaar centre culturel jaar na fi suñuy système jaar na fi mais tey tamit euh, dañoo amaat beneen euh, gan bu spécial di euh, Mbaye Samb di vraiment <laughs> xaritu petit petit bar dañuy bàyyi moom tey mu def présentation boppam. ndeysaan wax nga dëgg wax nga dëgg mais salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu waa Diourbel di nuyu waa àdduna yëpp. mais kontaan nan daal la ñuy wax kontaan nan balaa dara xewagul quoi. voilà waaw est-ce que mën nga wax ak ñi lay seetaan nii vraiment yow yaay kan ndax ah, waaw il faut nga présenter sa bopp. man maay Cheikh Mouma ñu naan ma Mbaye Sam waaw may doomu Diourbel dëkk fii Diourbel waaw te nag amuñu dara lu Diourbel di doomu yaayu Petit Bara maa ngi nii ah xanaa wax day jeex. waaw ah, ah, mu mel ni c'est la première fois lii ñu koy gis ci région de Diourbel bi ñëpp génn nañ xanaa ban yëg parce que damaa kontaan trop parce que lii jaw baas jaw baas def nii parce que amuñu fayam quoi parce que lii moom waa Diourbel ñëpp ñoo kontaan ñoo bég parce que ñëpp génn nañ ñëpp kontaan nañ ba fan yëpp ñu ngi feetu di loo xam te ne mosu fee am kon boog ñu ngi sant jaw euh, baas bu baax parce que kontaan nañ ci moom bu baax ah lu leer ndax ñun sax dinañ ko sant ndax dañuy dañuy dañuy gis ni gaaw gars yi def nañu seen yu baax waaw waaw def seen liggéey si daal yu baax di génn di doxantu ndax da ciy baax ndax de parfois ngay gis euh, ñoo xam ne ay ay góor ay kilifa yoo xam ne dañuy ànd seen i doom feete ko am ne tamit ñu ciy gis seen bopp ah en tant que xam ne da ngeen si wàllum aar ndax yéen vraiment yéen a ngi si gis seen bopp parce que di wax dëgg yàlla moom gis nañ ci suñu bopp bu baax parce que démb rek moom moo jëmee bi rek maa ngi fa doon play back waaw loo xam te ne tey jii nii neex na waa Diourbel trop ñoo xam te ne mosu xam ne doon ñi ngi ko doon liggéey waaw def nañ ko fi ñëpp gis ko kontaan waaw ñëpp ne ma kon xamuñu woon nii ngeen nii ngeen mel mais après mooy loolu noonu dépp daal ñëpp a kontaan ñëpp a bég Diourbel ñëpp a kontaan man sax damaa kontaan fii ah. Jaw Baas yow baas Baye Fall sunu mag jaa ngi nii taalibe Serigne Touba bi mu doon bala ay sa bureeg Serigne Mbacke Maram rakki Mamour Diarra yow Bass xale yi njaareem kontaan nañu ci yow bëggal nga mag ñi bëggal nga xale yi gune yeeg ñaga maar yi yow Bass oh, sunu mag yaa ngi nii dama kontaan magi jàmbur lool kontaan naa trop ci moom barke Sëñ Fallou ah. Eh, defee Diaw Bass dafay génne ay yeneen talent ndax vraiment lii suñ ko suñ ko defutoon su ko samputoon duñ am talent yoo xam ne vraiment dañ leen di gis nii et vraiment ñu lancé euh, population bi yëpp ndax genre yu mel ni gars yi nii dañuy baax ñu leen di jàppale ah. euh, vraiment ndax ay jeune talent la yoo xam ne vraiment ñu si dëkk bi il faut que ñu leen di suivre jàppale leen euh, vraiment au lieu ñuy dem feneen di fa jël ay star vraiment ñii ñooñu suñuy star ndax ñoom lu mu bon bon ñoo ngi tiitaroo dëkk bi vraiment ñu remercier la bu baax a baax surtout sama xarit sama sama doomu yaay Petit Baara Petit Baara kooku doomu Jurbel la te man moom ay ànd mais amuñu lu suñu dëkk fii dañuy dem dakaar feneen di ko toj mais suñu dëkk la ñuy tiitaroo moom lañ am muy Jurbel mais dama damaa bëgg tamit waa Jurbel jàppale ñu nan ñu jàppale parce que tey ji bu ñu ba dakaar ñi toj fu ne ñi xam bu baax bi ñu jàppale fu ñu woote ñu fees dell kon defe naa ne Jurbel gi buñ foore tamit war na ñoo mën a jàppale ah ci li ma foog quoi incha allah mais nag kontaan naa trop nag sama xarit ah. ok mais kontaan naa ci yéen waaw waaw noonu lay demee mais merci beaucoup <laughs> merci beaucoup gars yi ah, vraiment noonu la ñuy topp dynamique bi ah te daal daanaan bu ne fii moom daanaan plateau daanaan yaa ngi daanaan remercié lañ fi sax ah. quoi eh, merci beaucoup Mbengue <laughs> sama caméraman. monsieur téléspectateur de la télévision Baol TV mais également aux internets yi nga xam ne ñoo ngi ñu suivre saa su ne si à travers euh, www.baoltimes.com ah tey ñu dikkaat vraiment comme ni leen ko waxee woon bu baax a baax di leen topp jaajëfal toujours seen réaction ak ambiance bi xam ne vraiment moo ngi am fii nii si euh, euh, buntu poste xam ne Diaw Bass moo ko fi moo ko fi teg di ànd ak xale yi te ñu ànd ak suñu benn euh, suñu rafisante système boo xam ne dañ koy bàyyi moom tey mu nuyu internet yi vraiment mu wax ni salaamaaleykum maa ngi leen nuyu yow yëpp nuyu naa leen. waaw est-ce que mën nga ñëw baal nga wax ñu tur bi nan la mat leen. mat leen. ok mat leen waaw ñu anam suñu système bu waane nag da waane naan ñu mat leen mat leen ana ban yëg-yëg nga am ci lii nii. waaw xanaa kontaan rek kontaan naa trop moom ndax lii lu neex la. ah ñu gis ne c'est la première fois lii di am si euh, région de Diourbel ñu ànd seeg Diaw Baas mi si bëggal tamit xale yi ak mag ñi sa sang gi tamit di si gis seen bopp est-ce que mat leen euh, mën nga ñëw wax taxawaay bi nan waaw lii moom lu rafet la moom waaw xanaa ñu jàppale ko si rek moom yaa mu gën a xam nekk ci ginnaawam waaw parce que lii dafa manqué woon Diourbel daal lii mu def nii waaw kontaan nañ ci torop ah mu mel ni ah, comme ni liñ ko waxee woon mu doon ah, événement boo xam ne bu mag la bu mag a mag vraiment ñu ànd ceeg tamit ah, suñu waa EGS di maison de sécurité boo xam ne ñoom tamit ñoo ngi gis seen liggéey bu rafet boo xam ne ñoom koy liggéey fii si région de Diourbel waaye rawatina am ñu bàyyi mu nuyu ah, internet yi wax ñu ñoo ñoo seen présentation. maa ngi nuyu ñëpp maa ngi ziar kon kontaan naa trop seen teewaay tamit rafet na maa ngi nuyu daal ñëpp daal fekk lu mel nii daal ma ne ko bu ñëwee mos na fi am sax mos fi sax la ñuy wax waaye daal rafetlu nañ ko trop trop trop trop ma ne ko buñ mel ni Dakar. semaine moom Diourbel benn Dakar waaye incha allah maa ngi tamit waa LGS mooy suñu gars yi suñu gars tamit ñu ngi def seen kéemtulaay kattan moom mooy euh, lii bi nga xamante ne moom moo xew fii kontaan nañ trop nag si ñëpp nag kontaan nañ trop ñun kat moom am nañ ci taxawaay bu rafet ndax ñu ngi taxaw gars yi fii nii di sécurité normale ñu ngi ciy def tamit suñu kéemtulaay kattan lépp lu nga xamante ne mën nañ ko ñu ko ciy def ñu si def suñu kéem tolluwaay kattan daal. ñu dem saa su ne comme ni li nga ko waxee woon tamit ah, dañuy topp ambiance bi tamit di topp ah, vraiment réaction ñi nga xam ne ñooy ñëw di assister li nga xam ne moom la fi teew baas ah, rek ñu jox suñu système yi mu nuyoo tamit ba wax ñu moom mooy kan dañ lay bàyyi nga nuyoo wax ñu yow yaay kan. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ah neex rek la def neex rek la def. mu mel ni euh, c'est la première fois ñu koy gis fii si région de Diourbel ana ban euh, yëg-yëg ngeen ci am. c'est la première fois mu fi soog am li dafa war di chaque année fi am mais ndax Diourbel développé tuuti mais lii da ciy baax xale yi di génn di xool ak parents affaire yooyu noonu. Eh, yow da nga baax de mun a am xale est-ce que yow man <laughs> nekkuma mag santé mais tamit duma xale heure moom daa nañu fekk ñu tëdd nelaw daaw ñu xam lii comme c'est la première fois ñu fi soog am daf da ci baax chaque année ngeen koy def ay ati ati at at en direct nga koy wax ana lan wax euh, Diaw Baas bi nga xam ne moo samp lii nii Diaw Baas ñu koy félicitation baax a baax baax parce que ñi koy remercier daal lii moom mos fee am daal ni ma ko waxee woon sànq daal ñu koy remercier bu baax a baax parce que décoration bi rafet na trop macha jàmm bu baax a baax. si baax mel ni yaa ngi def sa euh, sa mbaxana Père Noël euh, def sa bu baax a baax. waaw maa nekk maman Noël waaw loolu sama mbaxana bu baax. ah est-ce que mën nga ñëw wax tur bi ak ban fonction ngay joué si manifestation bi. waaw maa ngi tudd Fatou Gakou te bokk si les hôtesses de table de Diourbel. ah dañoo ñëwoon tey ñoo yoroon fan yëpp ñoo yoroon organisation bi ak accueil bi daal. naka nan nga gisee organisation bi nga xam ne yéen yéen a ngi ciy taxaw di di si jàpp bu baax. waaw parce que affaire bi daal yomb na parce que xale yi ñu nekk si Diaw Baas jàppale nañu comme Suka ak Papa Diaw Baas ak euh, entreprise am daal jàppale nañu bu baax a baax liggéey bi daal jafewul daal loolu la ñu est-ce que mën nga ñoo wax ban yëg-yëg nga ci am ndax euh, li ñoo ngi doog a gis ma fii doog am manifestation bu mel nii. waaw xanaa kontaan ke rek kontaan si bu baax a baax di si sant Papa Diaw Baas parce que. li nit ñi waroon a def daal autorité moom def na ko en tant que moom def ko Diourbel daal sant nañ ko gërëm nañ ko baax a baax a baax daal. de la télévision Pro TV mais comme ni leen ko waxee woon dañuy topp logique bi mais euh, sànq teg nañ fi fii kat tey tey dañuy indi benn artiste beneen artiste boo xam ne moo ngi si Kakaar bàyyi ko mu nuyu internet et téléspectateurs yi xam ne vraiment c'est possible. salaamaaleykum ñi ñuy seetaan ñëpp maa ku ci nekk sa tur ak sa sant man la Astar ñu gën ma xam suwaal xam nga nekk ma ànd ak sama groupe euh, melodi ñoon fii day xam nga digal xale yi affaire yooyu waaw ah, ñu gis euh, présence euh, tamit mu doon benn affaire xam nga c'est la première fois ñu gis si si région de Diourbel ah, en tant que artiste vraiment yo ban yëg-yëg ngeen ci am bon dañuy sant yàlla ba pare di sant entreprise Diobass parce que tamit initiative bu baax ni nga ko waxee rek décembre da daan jot xam dañuy gis bu bari rek ni sax dañu doon dem ba Dakar maag suñuy di organiser ay affaire dem foofu léegi waa entreprise Diobass bu ñu ay doomu njaareem ñëw fii Diourbel xam nga fi seen kii di jàppale waa Diourbel dañ koy rafet te dañuy may ñu

kan mooy Mohamed Dieng ak lan moo tax mu takk bos bi waaw Mohamed daal dafa nekk xale boo xam ne ci loolu la dëkk bare dañu bëgg a woy parce que loolu lañ pour l'instant nii ñu ko musique billahi wallahi nañ lu ne ànd moom brigade deux mille dix-huit mais ñi def moom mooy loolu ñu ko sant yàlla mais Gakaare label comme ko produire xam nga ku ñu produire ku ñu koyantu ni si Gakaare xam nga moom yaa ma xoolee nii rek dañuy xam ne yéen moom ay daanaan ngeen ndax yéen ngay teg si cadre professionnalisme ñu ne ngeen seen style bu garaaw rek xam nga foo ko jëlee mais Mohamed comme dama doon posté ñu may dara li nga may mbëggeel la feeñ ci man séri sa mbëggeel feeñ te jëm ci man people Lumalak paymide ang biyon Di masuriyaw Awrat na lang Opo, opo, opo, opo Apay mo karaw, apay mo karaw Lii moom man maa ngi doon gis man lii xaw ma ko woon à l'occasion si événement Thiaw Bass bi laa découvrir restaurant bi téléspectateurs de la télévision Baol TV mais également aux internautes nga xam ne vraiment ñoo ngi ñuy suivre toujours euh, euh, sociaux yi li si mel ni 3w point baoltimes comme ni leen ko waxoon dañuy topp logique bi tey ñu toogal benn système mais système boo xam ne dafa bokk si organisation bi ndax ñoo ngi ko gis nga nga xam ne ñoo ngi suivre. maa ngi les hôtesses de table. waaw ah, maa comme ni nga ko waxee nii euh, mu doon benn manifestation c'est la première fois ñu gis région de Diourbel est-ce que nan ngeen def yéen staff Diaw euh, Baas bi ba taxawal lii. bon ñun moom avant tout dañuy remercier Diaw Baas parce que initiative bu mel ni yombul nit ñu koy def fii nii en plus ñu dañoo doon ay jeunes yoo xamante ne nii ñu nekk troisième année CAP CRETEF Diourbel. ñu formé benn groupe tuddee ko les hôtesses de table. organisation bi vraiment doon na loo xam ne métti na lool euh, ak nan nan ngeen ko ngeen ko ngeen ko defalee. bon organisation moom kon organisation xam nga ne métti na mais ñun yëguñu méttiwaay bi parce que li suñu fierté la ñun ñëpp. dañuy gis stade yi ñu koy def mais dañ naan ñu foo nekk Dakar may leen non non ñëwuñu Dakar ñu ngi Diourbel xam nga lii c'est la première fois mu am Diourbel ñun suñu fierté la moo tax métti bi lu métti métti duñ ko yëg parce que dafa neex ci xol. mel ni euh, événement boo gis rek organisation bu jaar yoon moo koy doxal euh, te organisation bi ku ko xool vraiment te xam ne jaar na yoon population Diourbel Laurentides yëpp jën nañ ci en tant que euh, vraiment saa nga doon koo xam ne day organiser ba kii jàpp ci organisation en tant que population Diourbel Laurentides ban yëg-yëg nga ci am. bon man en tant que population diourbelloise dama kontaan parce que lii c'est la première fois mu am fii Diaw tonton Diaw Ba nit nekk nitu kese la. xam nga lii bu ko neexoon mu ne moom du ko fi def mën na ko def feneen mais daa ñëw fii xam ne moom fi la dëkk amul lu dul Jurbel def ko ñun tamit ñu nekk ay jeunes yoo xamante ne nii dañu ambitieuse bëgg suñu dëkk buñ neexoon dañuy former suñu équipe dem Dakar wala dem Thiès wala dem feneen mais dañoo bañ ñun fii lañ am fii lañ nekk lu ñu am tamit dañuy dëppaat ñëwaat Jurbel ñun daal defuñu lu dul kontaan barki Seydina Mohamed di ko euh, waaw di ko ñaanal lii mu mébét nii ren déwén dàq ko déwén jëkk aussi dàqaat ko loolu lañ koy ñaanal